royal pour ou accident souriez vous bénéficiez d'une prise en charge complète et rapide avec Aski Assurance Auto Aski Assurance Auto la sécurité financière pour tous Awalibis ah vous propose les meilleurs produits agroalimentaires 100% made in Africa. Passez vite vos commandes sur notre site awalibis.com, nous livrons partout dans le monde. bas Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons. Onomo Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Habillez-vous comme vous le rêvez. Wuriba.com. Water 77 197 20 20. Festival autour des cordes, troisième édition, du 27 au 29 octobre à Saint-Louis. et Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. SK60. Maktoum, l'art de la finesse. Mina Wasak, Kajor, African Star. Matidi.com Bienvenue chez Bamba Partenaire. Protam. xale yi dañuy sëy te dañuy ñëw ci biir kër gi toog sëy comme yow. Marème Thiam yow mën nga génn ci man.

Kasa man fe yoru indi Lankero goyal

il est le gardien des terres sacrées du looloo ko yóbbali yëpp. en tout cas je vous laisse décider en famille mais quoi qu'il en soit def leen li gaaw ndaxte jamono ji sonn na. mais oncle Mor il faut nous trouver solution sinon sama maam day gën a nekk ci kaw bu pire loo ci mën def rek na gaaw. géej gi dalalal sa xel li ñu war a def kañ mooy nañ ñaan yàlla maam bu ko génn si li mu nañu toog nii rek xaar. Stop! ko eh ma eh. mais xool dara bu ko dalee dara bu ko sa sama lay rek wax yow nga sa kilifa la sa ah da ngay ko bandi du fi Boucar balaa muy sama, sa maam baayam la njëkk a doon soo fa yow ko rew nga. man sa baay laa. mbañik wa itam ah, ha ha way ah te loolu sama yon nekku ci yow mu bëreet nga. eh yow géej yow ya rew eh lu ëpp touru la la wax. sama papa du sa morom ba koy waxee ak moom nii. ma xol gën ci. génn ma ci la ci la bok eh nopi, nopi ki dafa rew mën na ko lijjanti sama bok genre nit ñi mel nii dama xamul looy dugg ci moom. Hmm? et sax yéen ñaar da yaakaar na ngeen ma nekkee man xaw ma ko xam naa lépp. papa de toute façon fii dara amatu fi lépp jeex na tey. man sa papa. Mbagnick. am kudd doo lakk nañ dem bureau mais lu xam ba heure bii nii dama koo je suis là rek relax. waaw yow nga xam ni liggéey sur travail. ok mais baal naa la booy bu ma sonal waaye booy. ba léegi sama question la moo tax ba heure bii damoo liggéey. d' D'accord, je me lance. au fait euh, je suis en désaccord avec ton oncle euh, Tanor et depuis lors j'arrête pas de culpabiliser et de me remettre en question sur beaucoup de mes prises de décision. mais pas ne sois pas trop dur avec toi man suis ngi pour ne que tu es un homme vertueux rempli de valeurs et d'éthique nit le la goût. ça me touche vraiment tes mots et sache que c'est bien noté Merci beaucoup. Yo ya yow tout pap Yo nga indanan. Mo. et puis comme tay ce day off la da ngay da ngay reposer wu et tout est-ce que doo ci profiter gu ci waañ bi nga togal ñu agn bu saf-sap. <laughs> lépp li nga ngi ci papa pour toggal ñu yaasa bu toj la wax xoolal bi de préférence ah, bu mu doon yi Mbengue dépêche-toi de rentrer c'est toi qui cuisine aujourd'hui. bul bi de <laughs> n'est pas sérieux. Kayki Kayki te sedd nga de lu xew nga ne hmm? dama na mu sama yaay ak sama papa gay ki métti na lool lool lool métti de waaye lépp loo gis bàyyi ko suñu warum foo tollu

Anil ma sama kurus bi ñu dem doxantu talal ni suñu Tu bu baax dégg nga waaw kay gaay ki gisee ko waa kay <laughs> voilà <laughs> ma bisu sax tamit ah non neex way waxuma mo dama ne mam du fani yi passé la la daajal oto bu bess yow mer ko tek ci mais doo génne auto bi ñu pendal tam bi wan boy naka tamit yow wer nga sama oto bi te xamna naa ne danga may mujj aal sa auto sax parce que ci lay perfectionner sama conduite mune auto ben kan? li Khadija xolal sama xel bi yob yóbbu de waaye des na fi astur ba tax na bi xalaatuma la kaa jox. dañ ko bàyyi yàlla jeexul li sa programme tey. tey mon programme bu là. laa am dama war dem visiter ay daara. waaw man mi bëggoon ñu yendu nag. <laughs> waaw tey même sama journée bu chargé wul woon sax yaakaaruma ni doon nañ ko mën def. comment ça. parce que j'aurais aimé passer la journée avec mon père déjà. le Seri. waaw. lu ko dal. On est moom paa bi nekkul xaw ma nu mu mais xamétou mako quoi c'est comme s'il est un peu déboussolé kër ga ko bay sax ba may ñëw. li bay am bari wol la en fait c'est que c'est pas son genre motax mu xaw bizarre. ñu ngi lay masawu bu baax a baax dëkk bi yëpp dañoo sëngeem billaay ndeysaan maam Bokar suñu maam bu baax la dañ koy ñaanal mu jug si jàmm rek wax ngeen dëgg mais eh, man dama jaaxle sax massa mareetu dëgëral dina jug si de eh, nga yaakaar mi ku jooy jooyaalewul maamam doo bàyyi wax yow kii nekk ci problème nga koy yokk problème. wax na dëgg ma kay ki bayante nañ. yow looloo tax ngay sëngeem yow Marietou yow lan ngay jooy. jeex na kay nouvelle bu neex la. eh yéen la moo xew. gay moo doon xuloo ak sama bu metti yow Marietou yow loolu moom doy na waar di. léegi nan lañ mujjee jot nañoo songoo wala jotuñoo songoo xeex nañ rayante nañ et eh, génne nañ gopp yi sémmiñ yi jug pour mu wax la ko pour nga génn am loo nettali village bi tey doo am loo yóbbu. yow arrêtel yow Marietou xoolal ni nga jongo ma yow xam nga ne yàgg gaytu seen diggante mënul dem ndax gaytu yorul ay nelawam doyul. mais loolu man la concerné. dem. Massa Bon, j'espère que nous allons vraiment faire affaire. Agrotem est là pour ça. On va vous ouvrir les portes du Sénégal. J'ai vraiment envie de travailler au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Touji, je vous présente ma merveilleuse femme, Madame Aïcha directrice des opérations à AgroDream. Bonjour, Madame K. Bonjour, Monsieur Toudji. Euh, vous êtes euh, d'une beauté éblouissante. <laughs> Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer. Enfin. Vous avez une charmante épouse. Je sais. Et une magnifique famille. Hein. <laughs> Ah, vous avez déjà vu Khadija Oui, oui, ce matin, elle est... Ah. <laughs> Alors, monsieur Toudji, écoutez, ce fut un plaisir pour moi de vous accueillir au sein Grim. Et j'espère que j'aurai l'occasion de venir rencontrer votre famille. <laughs> Tout dépendra de l'évolution de nos accords. Et ça sera vraiment avec un grand plaisir que je vous accueillir au Bénin. Un pas après l'autre. <laughs> Votre enthousiasme Mais fautes en tout cas. Allez, à très bientôt. Je vous en prie, allez, au plaisir. et bon voyage. waa est-ce que tu sais que commençons à lier avec la famille Tudji on va finir par s'implanter partout en Afrique. ah ouais. là vraiment tu m'épates. ton enthousiasme m'honore mon amour <laughs> mais tu sais je suis pas du tout content de toi. mais non la def. ton attitude ton comportement est indécent d'une femme mariée. tu ngi may dégg may wax ma lay <coughs> ngay kaka ah. Que se passe t-il là..? On est en train de se réunir..? Oui.. Oui.. Il viendra ce soir..! D'accord..? <laughs> N'est ce pas mon amour..? Les n'est pas ce que je voulais dire..! Tu m'entends..? C'est la dernière fois..! maam yaa may jël en otage de xam ni man awma toogaay yaakaar ma ne daa mën a toog lu yàgg ak yow fii mais maam li neex na ah dina eh, neex man dama bari salañ-salañ xamoon naa ne moom benn urgence dama bëggoon tey fii ak yow rek daa xam sax urgence am na parce que vraiment bëggoo toog waxtaan ak yow pour xam sa projet fu mu toll maam maa ngi sant yàlla ya bu baax a baax a baax yow xam nga ne kan que man dama bëgg a créer sama propre ONG te fan yii ci lépp lu may yëngu rek ci loolu la jëm mais ça me galvanise à un point boo xam ne amatuma temps pour dara. franchement motivation bi nga àndal nii ah mu ngi may fàttali ta propre mère mais à peu près ñaata année ngay jox sa bopp pour sa projet. ah. Euh... <laughs>

ndax loolu dafa bokk si dund bi ah yow sama gayan nga da ngay doon sama am nag yow tamit ah. dëgg-dëgg maam li nga wax moom mën naa la ko nangul. sa am laa dama bëgg quoi nga wax ma ban xale mooy dox sa bopp bi ni jamono ñu toll te xam naa ni am na sax am na de ah. maam yow daal yow doo mës a changé yow dangay ngay xuus ba xam rek ah. bon euh, mën naa ne am na xale bu jigéen boo xamante ne maa ngi koy gis fan yi

Khadija Ka. booy mais yow da nga may fonto lan Khadija bi nga xamee ni yéen a bokk deret da nga dof wala lan. uru ay ni yi nekk si dëkk bi xale yu jekk yi wax nga ma naan. mais maam mën naa la ma ne defal ndànk laa la wax te bëgg nga déglu ma dama lay jaxase tout de suite ramasser gis nga kii dóor sa kaw bopp nga toj laa la wax. góor laa woo. teel ko Votre série revient après la pub. Héritage Couture showroom Bo Ken ni Gisti Sénégal 00221 77 643 80 59 le www.héritagecouture.net Héritage Couture l'héritage de la mode. Femme. Rendez-vous au Bois des Manguiers de Kermoussa les 18-19 novembre 2023. Notre Dieu va encore nous faire du bien. Courons à sa rencontre, paix et joie. Johanné Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Marodi propose Graines de pouvoir sur Sonouyef. 50 spots milieu achetés, 200 spots débuts offerts en rediffusion. asamaan fee yor in ndigil hey coucou Toto Série bonjour Khadija comment vas-tu ça va mais qu'est-ce que tu fais là dama déggee na nga xaw a tawat ma ne xaaral ma ñëw toppatoo sama parent non chef dinaa ko rey quoi il fallait pas te déranger toi aussi bu dérangement bi jógee si yow amul problème suis-moi mais c'est trop bon en plus ta mère elle m'a dit hein, je sais que tu cuisines très bien. <laughs> depuis que je tu pas me dire ce qui se passe là, mais non ah, il n'y a absolument rien de grave tu sais nous les adultes de temps en temps nous am des moments de faiblesse c'est des coups de barre voilà tu me l'as fait sortir et là je me <laughs> je me sens vraiment médiocre comparé. Toto Serine, moi je te trouve pas médiocre. Au contraire, aujourd'hui je te trouve plus humain. Et puis, yaa chaque jour lay et que dund ak am nakar ñoo donc tu n'as pas à te sentir médiocre. si tu vois ça comme ça c'est cool. quest que que kanam bi ma wan la laisser mine bi sama téléphone sunam nga xool. lan moo nekk sama mine bi. sa mais tu dafa triste. bon attends j'ai une idée. c'est quoi ton.

un peu non..? <laughs> Là, au moins, tu m'as volé un sourire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci mille fois du fond du cœur. Tu sais, grâce à toi, j'ai passé une journée agréable. Khadija, Taï, tu as mis énormément de lumière dans ma journée. Merci. Tonton que pour je suis prête à faire ma mën pour que tu te sentes bien donc c'est gratuit. viens ici Khadija est-ce que tu sais une chose Khadija yow Je tax que je lan mooy bànneexu am doom Tu jigéen. Toto Sary c'est pas tout mais il faut que ma dem dañ may xaar urgence dama que je fàttee wax. Khadija mais il est parti. mbaa du man xam ma wax Mbagnick Mbagnick Mbagnick li ñu def ëpp na de góor gi waxoon nañu lu leer nañ ñu def li ñu est-ce xam nga yëpp bu amee yow yaa tax gis nga ñaar ñi bu len ma fonto terre bi ma koy jaay da ngeen ci Majik Bes bu góor gi wacce liggéey xamal ni ñu ñatt ñi ñoko ray rey te responsable ci ëpp Mbagnick yow ya koy gaddu nga xamee ko loolu majik man de len lay wax li mom xamal ni musiba la. top len sama kanam wa top len sama kanam way. yépp man la man maa def lépp. lan moo tax nga bëgg jël coow yëpp bëgg ko yenu foo ko teg coow li coow li gay ki la moom mi nekk xale ba pare bëgg aaki moo suuf si yëpp. waaye amul waaye dara bul fàtte ne yow yaay taaw ci kër gi yaay kilifa gi tey ñëpp sa ginnaaw lañu war a topp bis bu dara amee ëllëgit bul nangu ñu jël lépp di ko teg sa kaw. yaa ngi may dégg bu baax ah, waaw kay njaay eggal biir noppalu Et comme ça, le grand Seigneur se décide de venir travailler. Mais bienvenue chez toi. Je ne suis pas là pour travailler aujourd'hui, mais plutôt pour déposer ma démission. écoute retourne travailler c'est mieux pour toi. Tanor je démissionne parce que tu es un putain de crétin. et alors. Tanor baadoolo bu mag nga. t'es un lâche. Tu es un égocentrique. tu n'en fais qu'à ta tête. Respecter aucun nangul mais tu deviens détestable au fil des ans. Serine vient se trouver des paires de couilles wala donc tu as a une personnalité pour me hey maintenant, Tanor ngay j'accepte ta démission avec un grand plaisir d'ailleurs tu me ravales ton venin C'est que damay baadoo la je te permets pas. la gueule. comment. baadoo que je dis le pire comment tu as osé faire ça à la famille de Gaïki maamam mi ngi Dundu ak dé. T'es sous deewee jàppal ni yow yaa ko rey tu auras sa mort dans ta conscience def ko ci sa xel. et comme ça tu viens avec des accusations sans fondement ma hey yow sëriñ gay ki maam ji di waaj a tout le village j'en ai rien à foutre crevez tous en enfer fous le camp de chez moi d'ailleurs ma la faale Agrorim se portera mieux d'ailleurs comment c'est noté Ouais, dégage lu mel c'est bien noté bande de connard de loser Serigne tu vas pas me dire que da nga xëy rek sur un coup de tête nga jël bi décision xanaa di nga ci waxtaan ak nit ci réfléchir. ton mari c'est un. écoute waxal explique-moi parce que là je comprends rien du tout lan mon xew. Aïcha Tanor dafa ma xool ci bët fenn ma ne li xew c'est fini Dierna. ci gëna a il a fait ça à mon honneur ndekete mi ngi comploter ak ay nijaayu pour jënd famille bi mo demal ba plantation yi jusqu'à dugg une zone sacrée Aïcha tu es de Bafa je suis de Bafa xam nga bu baax Père a eu une attaque xamuñu ndax day dund xamuñu ndax attaque. dee yàlla rek une xam Tanor a safu ko ci non man dama attaque. pas damay eu wala attaque. li nga wax une attaque. Tanor def. Aïcha arrête faut que tu arrêtes. Mon problème est-ce que toi tu seras capable de te protéger de ton mari Tu nga un tu ci ñat bi la jëm ça risque d'être trop tard tu vas pas me lâcher Série tu peux pas m'abandonner Aïcha saa yoo ma soxlaa ñëw naa saa yoo ma woowee wuyu naa la te loolu tey la gën a nekk d'actualité

Elisabeth, ma. Akai kawal. Big na lolo. Kiki. Tisa juf. Kiki. Malabago. kiki. Mam. Mam malaganda bago mam. Mam lebih def niya priyata mo kay def. Mam toga talang man. Mam jayan din mam. Kiki. okay. def nga lépp waaye saa su nekk xamal ne maa ngi sa wet bés yaa ngi ci bési géej gi dinañu gisee bul fàtte mu géej gi Mabukan. Mam. Mabukan. Mam jangan mam. Mam. Mam bukan menyorek lah, mam juga. Mam jangan mam. Mam. Mam. As a man wu indi lankeeroo goy yal metti ni